واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد gannaaw buñ sante yàlla julli ci sangi-sanga yi muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oustaz Cheikh Alama Tidiane Salla ñu ngi la nuyu di la ziyaare waat ci suñ programme yi exploring Islam guest to Islam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 maa ngi kontaan bu baax a baax ci invite bi nga invite taal ma ci sa programme bu am solo bi mhm. maa ngi la nuyu bu baax di nuyu waa GRTS ak képp koo xam ne yaa ngi seetaan GRTS mhm. ci Gambie ak ci bitim réew di leen ndokkeel bu baax a baax a baax ci wu te yi ñu nekk mhm. di la gërëm bu baax di la ñaanal jàmm ajaay setu jërëjëf yaa oustaz tey nag suñu waxtaan bi ñu ngi bugg a waxtaanee si azaka mhm. boo xamee ne mhm. ñu bari fii maanaam muharam mhm. ati jullit bi su tàmbalee si lañ dee faral a joxe azaka azaka mu nekk benn boo xam ne benn la si ponki lislaam mhm. yàlla ngi wax si suratul nur ne wa atahum min malillahi lazi atakum mhm. loolu mooy dañ wara joxe azaka mhm. si wursak wiñu yalla wi ñu yàlla jox ba pare suratul tawba yalange waxat waxaat ne husmin amwalihim sadakatam tu tahirihum wa tu zakkihim biha loolu mooy azaka dañ ko war a joxe parce que dafa nekkal loo xam ne daf dee laabal alal gi ñu amee mm, mm. dañ bëgg a nag nga baaxee ñu mm. lan mooy njëriñi azaka bi nga xam ne loolu dina mun a ñaax julliti pour ñu xam ne farata la ko ku ko mun daf ko war a def muy ponka jërëjëf soxna Aïssata ñu ngi laa gërëm bu baax a baax ci thème bu am solo bii nga tànn mm-hmm. ndax asaka comme ning nga ko waxee muy ponk ci ponk islam mhm. moom muy taat bi muy ñetteel bi mhm. bo amee baati seede rek nga mhm. am julli asaka moo ci tegu am solo gi asaka am solo nag mu tax ci yàlla sunu borom tabaraka wa taala ci alquran boole na ak julli ci juróom ñetti fukki palaas ak lu teg waaw ñetti fukki palaas ay ay yoo xam ne yàlla dafa wax joxe asaka julli len joxe leen asaka da ko baamu nag ba juróom ñett fukki yoon ak juróom benn xam nga ne loolu sëñ bi yàlla li ma amee euh, benn benn santaane mu da ko santaane juróom ñett fukki yoon ci nga xam ne dëgg dëgg dëgg ah ah waaw ak mu da ko xànd julli nag mm-hmm. ndax julli muy jaamu yàlla ak yaram asaka muy jaamu yàlla ak alal waaw bokk na ci alquran nee na bam na ca suratu baqara alif dalika alkitab laa rayba fii hudan lilmuttaqin allazina yuminuuna bilxaybi wa yuqimuuna alsalata wa mimma rasaqnaam yunfiquun waaw mu ni ah, njub ñeexal na ñi ragal yàlla ñu nekk muy ñan muy ñi gëm loo xam ne gisuñ ko gëm yàlla te gisaguñ ko gëm aljana gëm dee tey julli tey joxe asaka wa mimma rasaqnaam yunfiquun ci santaane yi léegi la yàlla daf koy santaane wax ne asaka faratal def leen ko comme <laughs> wa aqimu salaata wa atu zakaat léegoo léeg mu santaane ko santaane xemem loo nit ki dige ci lu rëy rëy rëy rëy <laughs> waaw di nan wa ma anfaqtum min xayrin fa huwa yuxlifuhu lépp lu ngeen joxe ci alal yàlla danaa leen ko remplacer <laughs> te boobu dafay gën di bëri waaw dafay gën di bëri rek waxaat ne masalu la seen yunfiquna amwaalam fi sabilillah ka masali habbatin ambatat safa sanabila fii kulli sumbulatin min atu haba nee na képp koo xam ne yaa ngi jël sa alal da ko jox mu ngi mel ni ku xam benn pepp ji ko mu sax juróom-ñaari gub. Mm-hmm. gub bu nekk téeméeri pepp. dafay waaw yàlla mën naa yokkal keneen sax. xam nga jolaay poli na dañoo foog ne suñ joxee rek dafa jeex. moo ba moo tax ñuy koo <laughs> képp alal bi du jeex. yonent bi daan na wax ni mu ne wallahi. Mhm. a joxe asaka du wàññi alal. waaw maa na maa naqasa maalun min sadaqa. Mhm. waaw lii maa ngi ko wax gëm leen ko wallahi. Mhm. joxe asaka du wàññi alal waaye daf koo yokk. alquran ne wa maa aataytum min sakatin lépp lu ngeen joxe ci asaka. lu fa ulaayka humul mudhifuun loolu yàlla daf koy yokk ji nga xasaka dafa dafa dafa safaanoo ak riba riba muy nga leble benn di fayeeku juróom wala fukk mm-hmm. yàlla ñaar fukk mm-hmm. waaye yàlla muy daf koy euh, waaw daf du yokk xalal mm-hmm. wama ah, liitu boo fi am waaye naate fala yar boo xen lu ngeen joxe ci riba alal jooju leen du yokk du yokk du waaw kon de yow yaa ngi foog da yokk waaye yàlla mu ne yaa ngi wàññi alal asaka nag nga foog ne da ngay waaye yàlla muy dangay yokk waaw mu ne a saytaanu yaxidukumul faqra mhm. wa yamurukum bil fahsha saytaane de moom def le naa promise ak ñàkk ci asaka bo ne yaa ngi joxeel mu ne joxeel rek joxeel mu wàññeeku mhm. su ko defee nga ba waaye wallahu yaxidukum maxfiratan minhu wa fatlan mhm. yàlla nag mu ne li leen ci promise muy baxal leen seen bakkaar ba pare yokkal leen seen xalal dafa leen ci barke ay surtout lépp lu amul barke amul njëriñ. amul njëriñ te asaka dafay barkeel alal barke moo mm. gën nga am téeméer ba waaw dañ ci agsi léegi. waaw bokk na ci aaya li mu waxoon fa in taabu mhm. wa aqaamu salaata wa aatu saka fa ixwaanukum fi diin mu ni ñi nga xam ne yéeféer nañ saa yuñ tuubee nangoo julli nangoo joxe asaka seen mbokk lañ ki diina ji kon bokk si nañ foofu nag lu ñuy wax sarta la ak masruur sarta ak liñ sartaal te ñi jàng bayaan dañoo ne sarta bu dàqoo rek lañ sartal dafay dàqu sarta bi muy julli ak joxe asaka buñ ko defee lañ sartal nag muy seen mbokk la fa ixwaanikum fi diin kon képp ko xam ne du joxe asaka bokk ci diine ji képp koo xam ne du joxe asaka bokk ci diine ji waaw mm-hmm. ah, ah, ndax ah, ndax sarta ba dafa dàqu ku dul julli itam bokk ci diine ji léegoo léegi itam yàlla dal di eh, digle maanaam rafetal digle lu rafet rafet ci joxe asaka fa ama man ahta wa taqa وصدق بالحسنى وسنيسره لليسرى كيب وقم نمغي جوخي اساكا با باري گم كو گم ني يالا نكو جي فاي يالا مي دنا كو يومبالال نا كو يومبالال يونو مانا جار با بيزنس ام باخ يونو مانا جار با بيزنس ام باركل فسنيسره لليسرى واي واما من باقي لا واستغنا وكسب بالحسنى فسنيسره للعسرى كيب وقم ني دافا ناي ام علال با باري ناي بنكو جوخي يالا مني جيفي جيفي لا كو بولال رك jafe-jafe ci alal jafe-jafe ci yaram jafe-jafe ci njabot dana ko bolé ak jafe-jafe kon ndeke nay ci alal da fay joxe ak jafe-jafe waxat ci benen beneen wala sina yak ni shuna sahaba wal fidata wala yunfiqunha fi sabilillah fa basirhum bi asaabin lim kon lego leg mu tekk sax ci joxe gi bu la neexalee ba tey nga bañ mu sant la nga bañ mu far tekk ni kep koo xamné amna alal ba pare denc ko du ko jox asaka du ko joxe asaka fa basirum bi azaabin alim xamal leen ne yàlla dana leen mbugal bés penc mbugal mu métti métti mu ne yowma yuhma alayha fi naari jahannam fa tugwa biha jibaahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum haadha ma kanastum li anfusikum wa suqu ma kuntum taknisun mu ne bés penc alal ja dañ koy sompi weñ gu ñuul mm-hmm. tàngal ko ba mu xonq di ko ñaasee nit ki ci mm. ay jëfam ak waaw bi mm-hmm. jëbeeg gannaaw gaak yépp ne ko lii nga dencoon kaay mhm. loolu tëkku yu rëy la yàlla tëkk ko ñu joxe asaka mhm. gannaaw bi mu leen neexalee ñu bañ léegi-léegi mu neexalee man sa la si yow xoridula xardan xasanan ana waaye anak muy ñëw di lebal yàlla waaye mhm. lebal yàlla yàlla fa yu daaxi foo lu yàlla fay ko ba pare yokkal ko li yëpp ay neexal lañ